ak seen i gants seen i ah, njëgum yéen a koy génne loolu yëpp xaalis bi génn xale yi kenn ku ne lay jox tenue dàll kawas gants ak mees ay mees ba pare jox la chaque jour mille francs pour que sa transport xale yi ngay gis ni bu ñu feccee ba pare bu ñu la waxee lii ñuy am kenn ku si nekk bu ñu défilé ba pare euh, kenn ku ne je crois que 5000 ngay am du question ni euh, Kennedy moo leen di fay loolu mhm. mais question de euh, moyens dépenses moy bari ba nga fi am parce que yombul chaque jour répétition deux mois nga jox len passe jox ñu ñun passe lolu nekul lu yomb ben ñaarel bi ñun tamit li ñi jox les batteurs bu ñu paré pendant deux mois duñu am ludul ay 20 000, 25 000 par personne des fois bu ñëk 15 000 lañ daan am 15 ah, 000 lañ 25 000 ay 20000 francs mm, nak lu ko waral moy budget bi mo matul lolou mu mat dal ndax ndax ndax def nga ay démarches pour pour meuna am budget bu bu am doole euh, ndax ministre ñing lay jappelé wala député wala wala le président bi non parce que ñom Kennedy dam leen wax ne leen li sam pap don def man peut-être dina ci am luma ci meun mais amna lo xamne xam ne parce que li du ndjay Rose du Biram ndjay sam pap dañ dem keur ministre yi présenté du ndjay Rose ñu bayiko mu dugg mais man bu ma ñëwee ne doomu du Ndiaye Rose laa di nga dem fuñ la bàyyee mais di nga dem fuñ la téye. parce que waaw nekkul wala. Euh, non pas connaissance mi ngi fi mais amoon na cëru Doudou Ndiaye Rose du cëru Biram Ndiaye waaw nit ñi amoon nañ cër ci moom que man mhm. moo tax xëy na man ma dem ci maire yi mhm. bëgg a gis benn maire mhm. dama koy gis mais bu bëggee dem kër ministre bu ma ñëwee ñuy Biram Ndiaye Rose ñu naa ah, nee na bind xaw ma audience nanga mais paa bi daan dem ànd ak ñoom di dugg ci kër yi parce que du Ndiaye Rose la woon ak Birame Ndiaye bokkuñu moo tax man fi ma leen mën a yóbbu laa leen yóbbu leneen li ñoom ñoo koy bind parce que ci ministère yi eh, dinañ am des fois ay retour des fois du ñu ay retour mais daal li ñu am daal après jox nañ ñu ko ñu si mën ko séddale nit ñi ñun na bu ñu ñëwee lan ñuy jox du mot dara pare mais il faut cëru du Ndiaye Rose génn si cëru du Ndiaye Rose mooy lan Eh, jabaram yi dañ leen di sedd doom yi nga xam dañ ci bokk te mënuñu woon bokk ci liste bi dañ leen di sedd génne ci yu bari ah wàcc ci kaamil pour pa bi yooyu yëpp moo euh, li ñuy am du mat dara daal voilà. mu nekk ñu daan dugg ci li nga xam ne phase terminale bi euh, demu Macky Sall nan la la def. waaw demu Macky Sall euh, metti na ma mais c'est normal parce que man APR laa woon. doon jàppale le président Macky Sall ànd seeg suma xarit suma frère suma doom baay muy Cheikh mbay di doom ci El Hadj mbay Mbaye yoroon benn mouvement sa dëgg-dëgg doon jàppale président Macky Sall euh, politique bi yëpp ñu ngi si woon campagne bi doon jàppale le président Amadou Ba yàlla def euh, président Diomaye gagné ñun ñëpp ñu àndandoo jàppale le président Diomaye parce que moom la fi yàlla teg dañ koy nangu. Macky Sall bi mu fi nekkee moom la ñu àndal yàlla defee mu jeexal dañuy nangu mais dem la boo xam ni euh, day metti man keroog tàggatoo bi rek ca pale ba rek sama kër laa xam seetaane mais dama doon jooy parce que mënuma tàggatoo man ma gis ni mag Sall la ngi dem koo xam ne pendant douze ans yéen a ngi nekk muy dem foog mu metti mais foog nu dogal ni allah kulli xamoon nañ ni day dem ñu tenir ko ñaanal ko sant ko gërëm ko ci li mu def ñun nag. Euh, merewuñ ko si su si nguuram mhm. waaw parce que waa kër Doudou Ndiaye Rose moom cër bu ñu war a am ci président Macky Sall am nañ ko mhm. mooy bi Doudou Ndiaye Rose génne àdduna mhm. moo njëkk a yónnee taraangaam jaale suñu yónnee gouvernement bi yëpp ñu ñëw moom bi mu jógee voyage ñëw na jaale suñu euh, jox ñu parole ne pa bi dafa bëggoon école école Doudou Ndiaye Rose man nag musuma bind daf ma waxoon ne ma naa ko recevoir maa bi ma ko recevoir ci la gaañu mais nag xam naa ni yéeneem moo doon am école dinaa jël grand théâtre tuddee ko du Ndiaye Rose saal yi fa nekk yëpp saal bu la ñu tuddee ko njabootu du Ndiaye Rose yàlla def na def na ko ci nguuram boole bi mu fi nekkee lépp lu muy jox askanu géwal artistes yi communicateurs traditionnels yi cëru du Ndiaye Rose day génn ñëw ci njabootam kon moom def na devoiram ci ñun ñu kontaan lool ci moom di ñaan rek nag le président Bassirou Diomaye fay xaw ma nag ban ministre de la culture lay tab mais ministère de la culture boobu ñëwee na jox Sénégal bu baax cër ci les artistes parce que ki fi nekkoon muy ministre Aline Sow taxawaayam rafetoon na. gisoon ngeen seen bopp ci Aline Sow. Aline Sow bu baax Aline Sow lépp lu ñu organisé ci famille Doudou Ndiaye Rose kenn du ko si jiitu. dugal na ci loxoom bu baax ba pare wax ci ay kaddu yoo xam ne mooy dàq sax lim ciy dugal ne ni Doudou Ndiaye Rose fi mu yóbbu drapeau Sénégal li mu jaay culture Sénégal mm-hmm. buñ koy rendre hommage man Alioune Sow kenn war ma see jiitu mm-hmm. may doon seen Baye Fall ci président Macky Sall doon seen Baye Fall ci lépp lu ngeen organisé mm-hmm. nag Doudou Ndiaye Rose liggéey na loolu kon moom bi mu nekkee si culture bi jox nañ ñëpp cër kenn merew ko le ministre Alioune Sow may ñaan na kii ñëw comme xamaguñ ko bu ñëwee ñun li ñu bëgg rek ñun waa kër Doudou Ndiaye Rose mooy bëgg Bassirou Diomaye Faye recevoir famille Doudou Ndiaye Rose bëgg tamit nomination yi nga xam ne mi ngi am ci askanu ngéwal ñu di ko def ci famille Doudou Ndiaye Rose tamit parce que barki dem Ndiaye président Macky Sall bi muy nominé artistes yi ñoom Ismaïla Lo Baba Maal Mbaye Guèye fay ñoom ñëpp vraiment ma rafetlu ko parce que kenn ku si nekk boo leen décoré euh, artistes yëpp nga décoré man woo naa Mbaye fay Faye félicité ko moom tamit mu tontu ma xamsa wan ne ko nii liñ la nominé mën nañ ko defal ak askanu géwal mais bëggoon nañu jour boobu ñu ne président kat boole na ci njabootu du Ndiaye Rose ma taxaw wala sama beneen frère taxaw ñu toppal ko médaille au nom di du Ndiaye Coumba Rose waaye dañoo def jàpp ni rek xëy na mën na ñàkk ni fàttu la waaye ñu parce que li ñu am yaakaar naa ni dara gënu ko rëy muy grand théâtre doo fa romb mukk te gisoo photo ba wala turu du Ndiaye Rose kon merci son excellence le président Macky Sall ren heure bi waroon fekk biram jàkkaarloo ak président bu bees bi tëggal majorette yi muy 4 décembre 4 avril mm. autant pour moi gisuñu ngeen def ko parce que ren 4 avril amul ça te fait quoi nan la la def ma rek parce que bëggoon naa nag président bu bees bi teel a falu 4 avril bi nag ñu defal ko lañ daan defal chef de l'état yëpp mm-hmm. mais man gëm naa ni Diomaye le président Diomaye moo problème ñëpp nag lan 4 mm-hmm. avril bi di ñëw at la de mais ñun dinañ ko répété at fekk ko at préparé ko ba mu ñor mu toog ñu won ko ni at mi ngay toog fekk amul moom la ñu booleeg at mii tey mu doon benn at nag bëgg nañ ko defal loo xam ni eh, yàlla bu yeneen chef de l'état yi ne mais ñun xanaa dañoo beral loxo jomaay waaw dañu bëgg a changer lu bari quoi dañu bëgg a changer côté indil ko beneen style xam nga def fa lu fa kenn mësul def mhm. parce que fal bu bees deug bu bes waaye jumaay na comme sirel la waaw fecc bu bees comme la il eh. faut ñu tëggal ko ta dabra da da zabra sa kin ki chakin kin chakin cha cha cha cha kin kin kin chakin chakin cha cha cha cha kin kin kin Bassirou jumaay fay fo ñu ko fayanam mhm. la fofu la bokku ba pare nak taxaw nak jiin ko bàkk mhm. ko fasiyene nak and ak mom nak ci ayam wi parce que nak rew boko yoré da ngay fexé nak ba déggu nag ku fi falu ñoo la fal nag ñun mën nañu lu baax mën nañu wax lu baax te su suñuy rythme luñ la ci tëggal loo joxoñ suñu borom nangu moo tax jomaay ñun dañ koy accompagner bu baax ñun famille Doudou Ndiaye Rose ma bëgg nag képp koo xam ne euh, yaa ngi si état bi lépp looy organiser rek nga bañ a fàtte njabootu Doudou Ndiaye Rose nag état bu fi mës a toog rek jox nga cër njabootu Doudou Ndiaye Rose ngir turu du njaay ko mboros kon ñom biram suma déggé sa wax dafa melni wa waa du njaay ko mboros dañ leen faté ci yu bari wa parce que amoon na yu bari yo xam faté nañ ñu ci won def nañ fi ay conférence de presse parce que bo xolé stade abdoulaye Wad bi pose première pierre bi son pap moko teug ak sans batteur biñ koy inauguré kenn woowuñu bolé wuñ ñu si ñu def conférence de presse vraiment depuis lors luñu am wooñu mais dama japp ni réew mi kenn waru fi organiser dara ci culture te doo ci boole famille Doudou Ndiaye Rose parce que ku xam sabar tey ci àdduna gannaaw yàlla Doudou Ndiaye Rose la moom moo doon son excellence de tous les griots moo yóbbu sabar fu bu ndee ba Japon jël rue tuddee ko Doudou Ndiaye Rose kon Doudou Ndiaye Rose nekkul woon quelqu'un yóbbu na sabar fu ne nit ña ci am lu ne ñaata doomu jàmbur la génne maa ngi doon wax barki dem Ndiaye si benn émission ma ni sama papa ñi mu génne ñu tukki ñëpp kenn ku ne doon joxe ñu dégale ko di ko jox njabootu du njaay roos ay milliards lay doon mm-hmm. te dimbali na ku ne ci galañam boobu mm-hmm. donc war nañu daal gëstu famille du njaay mm-hmm. ci réew mi xam ni seen suñu papa mënoon na di dem ci dëkk yi di sol beneen tenue waaye sama papa benn tenue la amoon mooy da doon wax ni moom drapeau Sénégal la moom lay sol dëkkam la moom lay jaay fu mu jëm moom la yóbbu kon nag ki jaay dëkkam nag ba dëkkam ñëpp xam ko bu ñu waree décorer wala ñu honorer war nañu woo njabootu du Ndiaye Rose di leen décorer di leen honorer donc kontaan naa bu baax ci ñëpp di nuyu bu baax suma yaay suma xarit di nuyu Sophie Ndiaye suma sœur États-Unis di nuyu suma soxna su baax si nga xam ni mi ngi si kër gi muy munaas lay jural ma njaboot gu baax ni suma xarit maa ngi koy ziar bu baax mais nag du ma jeexal mukk te nuyu ma kenn koo xam ne suma xarit la muy mbay Diagne mbay Diagne international dafa def acte boo xam ni su commune HLM mooy nar fee ubbi benn liggéey boo xam ne su paree mën naa ne chômage day jeex commune HLM mhm. nag euh, lu mat ñaata presque ay cinq cent quelques jeunes war nañ ci liggéey kon loolu nekkul lu ndaw euh, may ñaan autorité yi li njëkk sax mooy monsieur le maire Moustapha Diop moom mu njëkk a jóg ñoom Cheikh Mbaye nañ jóg autorité yëpp nañ jóg ñun ñëpp jàppale Mbaye Diagne ci projet bi nga xam moom def ci HLM mu mën koo réussir ba nga xam ni sunu rakk yi nga xam ne ñu ngi taxawalu ci commune bi kenn ku ne am looy for mën ko yóbbul say waajur mbay jaañ daal yal na yàlla wéral tànk yi wéral cër yi yàlla may gudd fan yaayam ak sëram su baax soosu nga xam ne muy anta nga xam ne moom lay jox yi muy jox nit ñi nag koor gi ñu ñëpp jot nañ suñuy ceeb ak diwlin loolu la ko defee ci commune bi yëpp ku dëkk si commune asalem rek mbay jaañ jox na la ceeb diwlin suukar jaarale ko ci sëram anta kon nag ñu ngi koy naan yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko njabootam Mbaye Diagne projet bi man Birame Ndiaye Rose maa ngi si biir. ayca <laughs> jaajëfal naa ko moom Birame Ndiaye Rose la ñu dalaloon tey fii ci Melokaan TV ba beneen yoon ak keneen ki ñuy saytuwaat jaajëf.